bu ngeen gisee fii ñu toog nga xam ne ñu ngi ci suñu confrère yi nga xamante ne ñoo bokk liggéey bi ñu nekk fii ci Gambie soxna si turbinal la. man ñu ngi may woowee saa séeréer bu rafet. séeréer bu rafet. waaw gis nañ liggéey bu rafet bi nga xamante ne yaa ngi koy liggéey ci làmb rawatina fii ci Gambia mu am ñaari combat yoo xamante ne bëggoon naa ngeen wax ñu dayo bi nu mu toll lu mel ni Leket Baara ak France combat boobu nan la mel ci Gambie. Euh, di la jaajafal bu baax a baax di nuyu seen waa site internet bi euh, parce que tur bi. wasaare lamb. Euh, ok wasaare lamb di leen di nuyu lu ko dalee seen management bi si kaw ba ci suuf ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen di jaajëfal di am mbégte ak kontaante di leen di dalalaat fii ci Gambia si beneen yoon parce que gis nañ ne ñun tamit bu ñu jógee Gambie dem Sénégal da ngeen ñu dee dalal kon ñun tamit dañ leen di wax ne ngeen dal jàmm ci Gambia dina am mbégte ak kontaante si wax ci combat boobu ci dayo bi nu mu toll. ko weesu foo ko natt rek weesu na ko muy digganteeg leket ak France bu caw lu yàgg la du léegi coow bi nga xam ne la France dafa yàgg de laaj ki nga xam ne ni ne mooy leket bu baara euh, bu ñuy xayma comme ni ko France waxee wala ni ko leket waxee bëri woon nañ leket bu baara ne ko man dama laa daan mu ne ko comme dama bëgg nga wone photo yi nga xam ne ni ne mooy contour Modou Lo ak Ama Baldé parce que photo yooyu noonu bi Ama Baldé ak Modou Lo ñuy waree signé combat bi ñëpp dañoo wax ne comme que d'accord daan nañu wone photo yi ndem si yàlla Falaye Baldé moo tegoon combat ba yoon na ko yàlla yërëm te ko àjjana ci bunti këram ñun ñi ñëpp gis photo yi France nee na noonu la bëggee ñu génnee photo yi contre moom ak ki nga xam ne mooy leket bu baaraam mu ñii naan 2 la France na 1-1 lay demee parce que moom daanu ko kon bu soobee yàlla combat moom soxla te moo ko bëgg yàgg-yàgg na bëreeg moom. jamono di jox comme ni nga ko waxee tey ba promoteur yi ko bëggoon ci Gambie bëri nañu lool. amaana tey kum koy yàlla jagleel mooy Jamaïcain doomu sénégambien bi moom la ko yàlla jagleel comme tey bu ñuy wax dañuy wax ci cadre journaliste bi ñu nekk di jaajëfal ki nga xam ne mooy Jamaïcain tey boo xoolee public bi dalay leer ne combat ak France ak Leket Bara sénégambien ñoo ko soxla. fokk nati wees nañ ko dañoo bëgg a xam ñaari mbëri kan moo man sa morom parce que coow li bëri na kii naan maa la man ñeene maa la man mu nekk combat boo xam ne nag combat bu neex lay doon. combat bi séntu nga ci xeex. combat bi xeex mun nga cee am mbapat tamit mun na cee feeñ parce que Leket rek mbëri mbapat la France day xeex day mbot kon combat bi foo ko nati ci diggante ñoom ñaar rek weesu na ko muy xeex di mbapat bi ak di li nga xam ne nii mooy dóor bi foo ko weesu rek foo ko na ko. jërëjëf séeréer bu naay di la jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal waa wasaare di leen di dalalaat bu baax a baax si Gambia Gambia ngi nii nag ñun amuñu corona ñun dañuy def lu ñu neex. <laughs> neex. <laughs>